ak santam euh, tey nag dellusiwaat ni seen émission sama parcours sama parcours nag euh, ni ngeen ko xamee chaque jour ñu am ku ñu dalal tey nag ki ñuy euh, seet si moo di soxna Diewo Diagne alors madame Fall soxna Diewo Diagne nag doomu Alaaji Basiru Diagne Marème ci réew mi ci lépp ci lu baax rek Alaaji Basiru Diagne Marème def na moo xam ci kilifa diine yi la moo xam ci état tey nag doomam lañ seeti mu di soxna Diewo Diagne dinañ waxtaan ak moom parcours am waxtaan ci li nga xamante ni moom actualité du Covid 19 waaye waxtaan bu baax a baax ci réew mi ni muy doxee yu ni mel yooyu yëpp dinañ ko yaatal may ñu rek ñu daal di dugg seet suñu gan toog waxtaan ak moom léegi léegi lay euh, doom ci Alaaji Bassirou Diagne Marème comme ni leen ko waxee moom lañ fekk si fii tey ci këram fas yéene waxtaan ak moom euh, parcours mu di jaar-jaar waxtaan ci way juróomu góor mu di Alaaji Bassirou Diagne Marème nga xam ne def na lu nekk ci réew mi moo xam diggante la moo xam état la lépp loo xamante doomu alaaji Bassirou Diagne Marème kon mbégte bànneex la ñu am dalal la tey soxna Diewo Diagne madame Fall ci émission bi nga xam ne mooy sama parcours fekk si la sa kër a'uuzu billaahi mina sheytaani rajim gannaaw bañ sante yàlla julli ci yonant bi euh, ñi ngi am mbégte ak contentement bu mag di la dalal DJ Prince tey euh, jotaay bi nag ñu ko yàggoon sàkku bari na mais ci yow la ko yàlla jaarale ndax macha allah sa yar sa pas-pas sa li ñu naan xale bu setee loxo macha allah dafay mën a bokk ak ku nekk kon ñu ngi leen di dalal jàmm di la wax bismillah buñ doon wax soxna Jeew madame Fall lu yomb lay doon man ñu ngi may wax Dieynaba Diagne ñu bari gën ma xam ci Jeewa Diagne may doom ci Alaaji Bassirou Diagne Marème grand serigne de Dakar chef supérieur de la collectivité Lébou man nag yàlla dogal na may chef d'entreprise def commerce général

dañu dugg ci secteur friperie dugg ci ci commerce général comme li ma la wax di ci jàppale jigéen ñi bu baax a baax a baax waajur dafa euh, am solo te yàlla dafa def ñu ñàkk suñu waajur bu jigéen ci laa xaw a sursoiré tuuti ci immobilier bi mais ma ci travaillé en partenariat ak Invest Immo ak yeneen agence immobilière yoo xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu commerce bi nag ñu ngi ci ba tey di jël friperie di ko indi ci réew mi dimbali ñi nga xam ne seen loxo jotu seen gannaaw di jàppale ñiy jaay jën di jàppale ñiy def commerce ci secteur bu ci nekk dañ ciy taxaw fi may waxee ak yow boutique bi nekk nii à côté friperie lañ ci def mais jamono ji ak Covid 19 nga xam ne lëmbe na réew mi dañu mujj surseoir activité yépp mais ñi ngi ci ñi ngi jàppale jigéen ñi di taxaw wax dëgg yàlla pour euh, suqali suñu réew pour na neex a wax du neex a wax parce que macha allah dafa nekkoon un homme dimension exceptionnelle macha allah

boo demee Kaolack yaa ngi fay fekk Mboose dëkk bu ci nekk am na rab bu fa nekk te ñoom ñëpp mooy seen jëkkër muy lëg daaru nekk fii te buy wax danaa saalaali Muhammad Seydina Muhammad lay jiital am ay ñaan ak ay sarax yu muy laaj ñu koy def wax dëgg yàlla mu taxaw woon ci farataaloon euh, saraxu ndakaaru jëloon collectivité bi nag dundal ko jël néew di doole yi boot leen am yërmande ci ñoom taxawaayam ci réew mi nekkoon taxawaay bu am solo ndax nee naa nit ki boo koy dimbali doo bàyyi ba mu dee nga dooree jóg dafa jaadu nit ki feebar nga assisté ko mi ngi ci woon miskin yaa ngi koy jooy xaru tabaski yaa ngi koy jooy parce que bari woon na ñoo xam ne daf leen daan dimbali ci wàllu woowu ñi nga xam ne bëgg nañ dem màkk seen doole bariwul mu leen daan dimbali ci ay biir màkk dundam yëpp daf ko sàkk daf ko daf ko def ci néew di doole yi dundam yëpp daf ci dimbali nit ñi macha allah fa tabaarakàllaa kooku mooy sama waajur waaw loolu moo jaadu ndax macha allah fa tabaarakàllaa bu la yàlla defee ngay kilifa da nga war a tëddee jaaxaanaay donc loolu nga wax tëgg la ndax euh, turandoom ñu ngi ko tuddee euh, Moustapha Mouhamed Bas ji Basiru Mbàkke mu tuubaa mooy turandoom yàlla dogal tamit am doom yoo xam ne maye na leen biir Touba ba pare aussi digganteem ak xalif généraux yi ratax Tiwaawan boo fa demee macha allah suñu suñu maam sëñ Babacar si moo doon nijaayam Euh, yàlla dogal waajuramu jigéen Adja Marème Diop Makhtar amoon relation yu yaatu ak famille euh, Siyeen ba macha allah dalam sax ak dëkkuwaayam ak yépp dafa amoon mu taxawoon tarixa bi façon taxaw boo xam ne ñoom tamit ñu jël ko wax dëgg yàlla téye ko téye bu rafet boo demoon Njaasaan ma nga fa woon boo demee laayeen it yàlla dogal na suñu taaw ma koy nuyuwaale muy Rose mi ngi ci laayeen yi borom këram di sëñ moor Laay caw di doom ci sëñ Ablaay caw kon fu nekk rek yàlla defoon na càllale aw ci diggante ak këru diine yépp kon fa tabaarakàllaa loolu mooy li ko boole woon ak kër yépp mu ko doon taxawee ak collectivité bi mu nekk nga xam ne kenn ku nekk dinga am sa tarixa ñëw fekk si ko moo taxoon mu jël ñépp tamit boot leen la waaye damay wax benn mbir rek mooy yàlla dafa dogal Alaaji Basiru Diagne bépp doom bu mu am rek daggit nga ci moom mm-hmm. ndax ñun héritage mooy sax ci lu baax la nga xam ne ma nga woon it ñu teg ci suñu tànk kon loolu mooy li nga xam ne ñun moo ñu war ndono googu nag bu la ko sa waajur bàyyee def lu baax la war te may fàttali nit ñi nag ne askanu lébu dafay askan wu noble dafay askan woo xam ne askan wu gore la nee naa lébu du du du du du jël lu moomul lébu du wor lébu as gor lay doon bari na ñu ñuy wax lébu sax boo xoolee ba ci biir danga naan ndax lébu la ñu parce que original lébu bi ki tax ñuy wax lébu authentique boo ko xoolee bu jëfee nga xam ko bu waxee macha allah fa tabaarakallaa nga xam ko kon mu mel ni bépp doom bu mu amit ci loolu la la tàggat ba macha allah fa tabaarakallaa fa mu tegoon sa tànkit yaa ngi fa teg sa tànk donte nag jamono neexul ndax nee naa fi mu nekk nii ñaari euh, couche de kii moo am ci population bi nit ñi dañuy jaawale faqir ak miskin miskin mooy ki nga xam ne yorul dara ñëpp xam nañ ko faqir yi nag ñoo bari faqir mooy ki nga xam ne doolem bariwul sak lay doxe boo ko xoolee gis ne am na sak fekk ci biir doole ja demeewul noonu kon mu may mel ni aussi couche population boobu tamit ñi ci bari ci lébu yi daf ci am ndax lébu buy dee sax ci ngor lay dee buy dee si sutura lay dee ma bëgg nag ñu delluwaat ci valeur yi delluwaat cosaan jël li ñu moom ñu téye ko sàmm ko suñ ko téyee sàmm ko dina yaatu chômage kenn dootu ko jooy ndax géej gi tey la fay génn suñu doom yi ñooy am jom dugg génne ji ko suñ ko génnee ñu def ay société yoo xam ne tey dina tax chômage bi tey kenn du ko jooy bu boobaa tamit dina dimbali ñu bari daal ci lébu yi ma bëggoon daal vraiment askanu bu xoolaat seen bopp Pape Ibrahima moom nga wax di ko ci ñaax di ci ñaax Ablaye Makhtar di ci ñaax ñëpp pour ñu gën a taxawaat xam liñ leen dénk parce que mag ñi bi ñu yoree puso bi réerul kon warul réer ci seen loxo. waaw aspect politique nag man agence bi laa yoroon doon ci yëngatu macha allah fa tabaarakàllaa sama waajur ni ñu ko waxee nekkoon sama xarit. ndax euh, jege buur jege xol bee ko gën daanul toog ba si yendu wuñu ci man lay yendu li ci ëpp di waxtaan ak man di diisoo ak man bés nag dafa ñëw seet si ma ne ma jey na ba ma ne ko ah mu ne ma il faut nga jóg yéen ay doomu lebu ngeen ndakaaru dina dem ba jaxasoo te bu jaxasoo ku leen war a yilif yilif ku leen warul yilif yilif leen ma bëgg nag bés ñi ki tey nga jóg nga dugg ci géewu politique bi ah ma ne ko dina jafe ndax moment boobu j'étais trop te comme école la ñu jàng ak yooyu te géopolitique laaj na nga am fit laaj na nga dugg ci nit ñi wax lu ma tëwoon la mais macha allah bi mu amee fu mu jaar ak man gis naa ne am na fu ma ci forger ba pare ñaax ma ma jóg jël ku mel ni ma soxna kan dénk ma ko ne ma àndal ak moom ngeen wàcc ci géew gi bi ma duggee ci ma soxna kan macha allah fa tabaarakallaa ma koy nuyu en passant mu jox ma cër lool dugal ma ci bureau politique am defoon benn parti bu ñuy wax union des forces progressistes dugal ma ci bureau politique bi àddina di dox comme li ma naan lébu day garder ay valeur am Ablaye Wade oo pour jox ñu ministère ma préféré toog ba ñu dugg ci ministère bi téye samay valeur ak sama mbooloo yàlla dogal ma téye ko bi nga xamee ne nag àddinaa ngi dox àddinaa ngi dox ba ñu gis injustice bi Macky Sall Ablaye Wade wanoon ko ko ci jamono génne ko assemblée def ko jëf ju ñaaw ji te man bugguma kuy nax saayal nit ak kuy bundu xataal nit ma jóg dem xeexali ji ko xeexali ji ko këru fonction bi mu joxoon sama papa mariste moom laa defoon sama villa sama këru campagne foofu laa defoon sama sama sama permanence jàppale ko fa tabaarakàllaa di ko xeexle ba yàlla may ko dam ba mu falu waaye lu sotti am borom am borom xam nga yàlla moo def fi mu nekk nii bu bu nit di sonn ci dara ba mu sotti xëccoo bi xeex bi day bari ba nga xam ne kenn ku nekk dangay bëgg féetale mbir mi sa bopp mais ñun bokkoon nañ ci ñi nga xam ne dañ daan dem këram may ànd ak Mamadou Thiané Diop ñuy fanaan Mermoz di ko jàppale di ci sonn référendum bi it ñu liggéeyal ko liggéey bu yaatu mais comme li may wax rek bu la yàlla dimbalee nga bokk ci collectivité muy askan am na liggéey booy liggéey doo dem ci nit ñi di leen wuti yow yaay gëm sa bopp nga jóg def say démarche ba sa liggéey feeñal sa bopp ci contexte boobu lañ jógee macha allah fa tabaarakàllaa def caravane ànd ak sama assistant yi ànd ak samay euh, garde rapproché ñu wàcc ci terrain bi ci référendum bi Khadija Sy ma koy ndokkeel ci pal gi ko président fal yàggul ndax bi muy def méga meeting am fekk nañ ko këram bokk kook moom nen ne taal Fatoumata taal may gërëm président tam ci tabb gi mu ko tabb ndax géejawaay dama fa daan nekk ak moom ci terrain bi gis liggéey bu yaatu bu xarañ bi nga xam ne mi ngi ko daan ah ma ciy profité nag comme yàlla indi na la di wax ne ku déggoon ne génn naa ci président Macky Sall dellu naa ci moom dellu naa ci moom ndax Marème Faye Sall day nit ku baax sama waajur dafa feebar mu taxawu ko taxawu ko di defanteeg man lu baax fonk ma lool ba pare jox ma sama gëdd kon nag incha allah ku yëgoon ne génn naa it ne yëg ne dellu naa waaw dellu naa ci président ndax bugguma fu nekk ñu dégg ma fa ci ma soxna laa génnoon dugg ci président delluwaat naa biir APR fas yéene ko jàppale man ak ñi nekk sama mbooloo mi nekk sama gannaaw te mbooloo mi nag mbooloo mu xarañ la mbooloo mu yaatu la waaw ndax fukki penc ñaari bi ñu leen wooyee dañu fekk GIE yi ñu ngi suñu gannaaw mbooloo mi mi ngi suñu gannaaw kon nag dinañ taxaw jàppale ko ndax réew mi fi mu toll dafa laaj kenn ku nekk indi sa contribution parce que feebar bii bi mu ñu ganesee gis nañ opposition bi kenn ku nekk ñëw tàllal ko loxo te loolu la réew mi laaj te nag président cim réew man maa ngi koy xaymaa tey danga naan président cim réew dafa mel ni borom kër ci biir këram day wuti di indi di sonn ci njaboot gi te ñun ñoo war a am discipline ñun sénégalais yi xam ne bu ñu ko yàqalee suñu bopp la ñu yàqal ndax kii dem di wuti di ko indi ci biir kër bu bokk kook ñépp da ngay ñaan yàlla bu demee la muy wuti mu am ko mais yow soo génnee yàq derem ci bitim réew ONU secretaire général bi dem ba mer bor yi ñu baal ñépp yow sa réew kenn baalu la borom taxawaay bi nga xam ne tey jii moom mi ngi koy taxaw di sonn pour dimbali réew mi su vaccin yi dugg ne vaccin yi baaxul ku la war a dimbali toog di la seetaan mais bu yàggee guute jur ci réew te Sénégal gàll benn gàll bu diigee ñun ñëppay diig kon nañu ànd ñu joxante loxo ñu jàppalante man lool laa Covid 19 bi rek ñu gën a yokk laawirante biir bi ak yërmande gi deflante lu baax yéenante jàmm jàppalante ci suñu biir ku amul dimbali ku am mbir mi buñ ko séntu rek ndimbali buñ ko séntu rek ci président de la république famille boo gis am na ku fa yàlla may mu am wërsëg wërsëg yooyu nañ ko bokk ñu yàlla booleel nañu bokk nañu partagé bu ñu partagé lépp dina yomb bi ci des nag mesure d'hygiène yii ministre de la santé joxe na ci nit ñi bàyyi xel parce que jàngoro bi ñu ngi koy négligé mais mi ngi law te kenn xamul fu mu jëm masque yi nga xam ne ñu ngi ñu koy digal maa ngi sant ñëpp kenn ku ci nekk sa masque nga jël ko nga takk pour bañ a lor kenn bi ci des ñu gàtteñ gàtteñlu koo xam ne amoo soxla fenn nga toog restez chez na kenn ku nekk toog ci biir këram bu farata mënul ñàkk it nga génn dox ko ñu dimbali suñu bopp te it dañu baaxoo di lekkee loxo mais suñu mënee jël kuddu it di ko lekkee pour moytu virus bi it dina ci am solo. social daal mooy doon jullit ndax wax dëgg yàlla ñun ay jullit lañu te macha allah fa tabaarakàllaa bu fekkee da nga bëgg ñaax sa bopp ci ay valeur da ngay dellu ci diine ndax lépp loo xam ne ñu ngi koy doxee di ko jëfee diine wan nañu ko solidarité yàlla moo ko njëkk wax. nañ leen dimbalante seen biir suñu dimbalantee suñu biir wax dëgg yàlla ñu ngi dellu ci li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sant sant te tey mooy suñu référence sociale boobu nag maa ngi ci mais nag di ko def dans la plus grande discrétion. maa ngi koy rafetlu ndax euh, Sénégal wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk rek nit ku baax nga ku am yéene nga sa morom kon tey bu fekkee yàlla moom it mi ngi koy dimbali. mom mu nek le chef de l'État nek le président de la République ñu am ci mom yaakar jël ko tek ko ci bop réew mi yàlla di yombalal lu bare bare bare daf ko wara delo delloo ci population daf ko wara delo delloo ci population bi kon loolu mu def ñi ngi kontaan nañ ci te diko wax ne ko bu mu yem foofu na gëna taxaw réew mi réew mi dafa laaj ñu ñu bu baaxa baaxa baaxa baax di gëna a xalé yi ci discipline bayyi wax ju ñaaw bayyi defante ba pare ñu bàyyi tamit wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñu nekk benn ñu am esprit de solidarité pour moom it mu mën a réussir mission pour mën ko indiwaat. ah Marème Faye ku ko vraiment je la respecte beaucoup c'est une grande dame de valeur wax dëgg yàlla man dafa am xale yoo xam ne dañ may xool des fois ma defanteeg ñoom lu baax ñu jooy ne ma tata su ma màggee ni yow laa bëgg mel mais wax deug yalla maram vraiment c'est une référence ñi ngi sant yalla biñ ñu mayé une première dame de sa valeur vraiment parce que nek na ko xamné amna yermandé am na yërmande te mi ngi def lu baax te ñi feebar mi ngi leen di dimbali ndax tey su fekkoon ne ku feebar du la dimbali te ku dee ma yóbbul la nag bu boobaa dañuy taxaw ndax ñu dara feesu suñu bët man musuma lekk dërëmu état sama loxo ngi nii man yàlla daf ma dimbali maa demal sama bopp mais nag nit ki man bu ma gisee nit di def lu baax dama lay félicité ba pare di la gën a ñaax ngay gën a dolli parce que la ngay def feneen bu ma ko waree def yow nga def ko man nga ko defal kon loolu dañ ci sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que nit booy def dara di ci wut yàlla doo wut nit ñi gis ko mm. te dama gis ne tey ñu bari ñuy def dañuy taxaw di wanewu mm. di wanewu te loolu daanaka amul solo mm. parce que nit booy dimbali sa moroomu jullit nga bëgg ci tuyaaba bëgg ci ëllëg fayu yàlla jarul fësal danga koy def te yàlla tax looloo tax ma fonk Adja Marème Faye Sall ndax dama gis li muy def ci population bi di ko def ci nit ñi di dimbali te yàlla rek tax ba pare di ko def dans l'anonymat te loolu moom mooy li nga xam ne moo am solo daal. beneen bi ci des tamit may ñaax sama bokk jigéen ñi ñaax gi ma leen di ñaax nag mooy ñu gestu jàppale la première daan ndax gis nga fi mu nekk nit kuy def lu baax te yàlla tax jàppale ko dafay yey ndax tey dama nemmeeku ne couvre-feu bi mu amee. mi ngi togg di ko jox policiers yi ci mbedd mi moment boobu mënoon na dem këram tëddi mënoon na ne première dame laa ñàkkatuma dara mais yàlla daf ko suturaal lépp loo xam ne jëm na ci population bi te laaj ndimbal taxaw na ci mi ngi dimbali ñi feebar Adja Marème Faye yaa ngi koy dégg ci hôpitaux yi muy def lu baax mi ngi faj malaat yi surtout malaat yi ndax ku feebar soxla nga prise en charge te prise en charge yi ku ne xam na ne yombul waaye yombal na lépp yombal na lépp ba pare mu ngi dimbali képp koo xam ne mi ngi feebar mi ngi ciy def li mu mën ku woote numéro ver mu taxawu la te li ci gën a neex nag mooy taxawu gi daf ci wutul nit ñi xam ko daf koy def te yàlla tax may ñaax nag jigéen ñi ñoom ñëpp sama mbokk jigéen ñi ñu taxaw ci gannaawam mobiliser wu jàppale ko ndax man duma wax lu ma gëmul te it état mësuma jox dërëm mais bëgg na koy def lu bax ndax katu lu bax la social la xam képp kuy def social dama ne képp kuy def social yaangi ngi liggéeyal Muhammad. Mohamed képp kuy def social mën na wat na yow julit nga te Adja marem Faye Sall de julit la ndax mi ngi def lu bax mi ngi dimbali nit ñi mi ngi dimbali mi ngi dimbali njaboot te lolu c'est très important ku ñu sa biir kër nga dem ci mbedd ma taxaw joy mu wacc sutural la fat la bot la loolu lañu ñaan première dame bu mel ni moom nag ñu ngi koy door am kon nañ ko tiitaroo nañ ko tiitaroo nañ ko fonk nañu ànd ñun jigéen ñëpp mobiliser wu ci gannaawam jàppale ko mais tey ñi ngi wax président Macky Sall mais président Macky Sall li mu mën ci réew mi man de nee naa Marème mën na ko man de wóolu naa ko buñ ko joxoon réew mi mu doxal ko te il grand temps nag ñun jigéen ñi ñu jël réew mi ah te première dame man doy na ma pour ñu dénk ko réew mi. ñëpp àq tey baal ñëpp àq tey wax nag suñu jigéen ñi ñu dellu ci vieille marmite. ndax nee naa jàngoro yu bari léegi mi ngi am lekk yu bees yi ñu xewal ak yi dugg si suñu cin yi te gane si moo ko indi ndax diwlin ji bari na bouillon yi xeet yi bari na te yooyu yëpp it euh, mën na ñàkk suñu yaay yi dañ daan togg togg gu sell togg gu sell togg gu xarañ nga lekk ko digérer doo am benn problème ba pare aussi wax dëgg yàlla tam may gën a ñaax jigéen ñi rek ñu gën a sonn ci seeni sang di gërëm en passant sama borom kër colonel Abdou Fall Fall ca Ndeela Brimac ma koddu borom 33 mamou damee ji man dama bëgg jigen buy sëy te fonk jëkkëram man sama togg jëkër sax yalla dogal na man maa koy toggal sama bop waaw fonk ko lol di bëgg nak yaayam jëlé nek fële ñu koy wax jee assu ndjay nga jëlal mako parce que tay moma jural sama sang bu baax bi mënuma ko fay too rek di gëna ñaax nit ñi ñu déllu ci seen euh liggéey farata liggéey farata la bu liggéey weesooy jaamu yàlla farata la kon nañ leen di jaamu yàlla di jox yàlla li mu moom di julli ci waxtu yu juróom di natt azaka azaka lu am importance la liggéey na ba liggéeyam jeex xëy yàqu parce que daanoo natt azaka di génne muuru koor di dimbali surtout di dimbali te yàlla tax nañuy dimbali te yàlla tax parce que téléthon yi bu ñu ko wanee ndimbal li tey bari mais koo wét wax ko soxla mu ne la mënuma koo faj yàlla dimbali ñu it ñu bokk tamit ci ñi nga xam ne dinañu dimbale yàlla may ñu xolu tam ñuy dimbali nit ñi ñu tane di ñaax nag tamit jeunes yi ñu gën a am discipline nañu bàyyi wax ju ñaaw nañu rafetoo na ñu jàppalante te Sénégal daal benn bopp la pouvoir ak opposition joxante loxo ñu ànd di di xam ne Sénégal lu fi baax pour ñun ñëpp la loolu daal laay tàggatoo allahuma salli ala seydina muhammadin walla fa tabarakallah di gërëm nag euh, fina bonbon borom fanema couture na fi bari di sama promotionnaire de classe lii ma sol nii macha allah moom moo ma ko ñawal di ko ñaanal madame sengor sukkandee la moom tamit yàlla may ko entreprise bi gën a jëm kanam jigéen la may jàmbaar la di gërëm King Family gi yëpp di jël nuyoo bi ko teg ci loxo si Jóob mu jotali ko képp ku nekk ci King Family di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm sama famille nag di gërëm sama famille di gërëm ñëpp di sant ñëpp allahuma sali ala seydina muhammadin wa sallim